waaw man de dama euh, delluwaat rek di exprimer suñu jaaxle ci lanteur bi parce que c'est un problème privé euh, bu boo xam ne ñaari nit ñoo ko seq ki ñi tuumaal ak ki tuumalaate alors li ñaan suñu borom rek te ñu ngi koy yeesalaat fii Euh, nañu bàyyi justice bi mu dem jusqu'au bout de la procédure rawatina ñaari jëmm yi ko seq ku ci nekk ci sa kàddu wax nga ne yàkkamti nga procès taxaw ñu xam fu dëgg féete kon nag man gisuma daal lan moo waral un an ngi nii ba tey dossier bi kenn lettu ko kenn firiwu ko voilà tey la Sénégal a d'autres priorités rawatina lii ñu tëddee anniversaire mu ngi tombeek bés bu tedd muy bés bi nga xam ne suñu mbokk laay nii ñu ngi màggal appelu Seyna Limaamu waaye lële dafa nekk coow li xale di wax bés ba lële sax dañ ko fàtte te loolu farata ju rëy la ndax xew-xewu diine la e, zikar yi di dal ñaan yi di dal loolu yëpp mënuñu dul rek ñaan suñu borom mu soppi ko def ko ay yiw sëmbërtal ko ci dëkk bi ndax jàmm sax fi waaye nag dossier bi nañu tribunal dimbali lijjanti ko rawatina ñaar ñi ko seex ku ne yëkkati nga kàddu ne yàkkamti nga àtte am ñu xam fu dëgg féete ah li fi xew warul xewaat parce que kenn amu ci avantage parce que fukk ak ñeent eh, xale yi si ñàkk seen bakken am na ci ku am sax vingt ans et même moins de vingt ans euh, doomu réew mi lañu te mën na nekk doomu ku ne rakk ku ne mbokk ku ne kon li fi xew kay gisuma nit ku yemb euh, koo xam ne yaa ngi juré de ton bon sens kuy ñaan lu mel noonu amaat fi alors bu ko defee nag nañu bàyyi justice rek def wareefam comme que ñun euh, dañ ci doon dox tànku jàmm mu créer incompréhension ñu defee ne ñun dañu bëgg a la justice ba mu waraloon ma am ci ay kàddu weccoo kàddu avec mon ami maître El Hadj Diouf xam nga moo fi bi mu yégee ne dem nañ kër Ousmane Sonko ma ak euh, Abbé Jacques Seck ak euh, imam Youssouf Sarr imam Cheikh Tidiane Diop ak yeneen dans le cadre du collectif des médiateurs religieux pour la préservation de la paix civile xam nga ba mu génnee ba ñu génnee sa naataango yi dañu tàllal micro ne ah waaw lan ngeen jëlee ci moom ci Sonko ndax ya seen jataay bi yàgg na ma leen tubaab dafay wax ne une médiation pour qu'elle soit crédible doit être à équidistance des deux parties waaw comme que gis nañ Ousmane Sonko te Ousmane Sonko n'a plus de droit que Adji Sarr Adji Sarr tam am na droit moom itam joxe sa version ni Ousmane Sonko joxe sa version presse bi ne ma ah kon loo leen bëgg wax foofu da ngeen bëgg wax ne boo leen jógee ci euh, Ousmane Sonko da ngeen dem ci Adji Sarr ma ne waaw moo logique alors naka la ko El Hadj Diouf dégg rek rek daal di ñu wooteel conférence de presse euh, mel ni man la ko <laughs> man la ko déjee Makhtar Gueye noppalikul bàyyil lu jóg nga ne da koy médiation lii mënoo ko médiation <laughs> ndax yow ku la topp dinañu tëj tribunal eh bien euh, avocat yëpp dem au chômage alors ci laa dem ci sa benn naataango bu ñu wax Lansana Cissé à 2S ma jël fa kàddu dala xelam ne ko ah El Hadj yàlla ñun amuñu benn euh, intention euh, li di wax te tirer le pain de la bouche ñun la ñuy dox. jotewul dara ak sa fonction d'avocat te en aucune manière mënul nekk une entrave au bon fonctionnement de la justice ñun dañu ne pendant que justice def liggéeyam comme que dëkk bi bari na coow ak jeexi jaaxa alors ñun ñu daal di ittewoo joxante loxo ay imam ay ustaas ak i labbe ngir jéem a seet lu ñu mën def ba wàññi dangaru ay bi loolu rek la mu ne non non non non ko fi médiation ah ñun ñu dellu toog ndax dañu ne woon ci période bi ñuy tàmbale médiation bi benn cas bu grave rek amoon mooy le jeune euh, Boubacar Ba bu Bignona ñu amputé ko de l'avant-bras il n'a que ans waaye fala yi fi yemoon y pas de de de mort xale bu am 16 ans nga ñàkk sa avant-bras dana am lu bari lu mu la handicapé ci sa avenir waaye amul woon ba kenn ñun ñu ne nag euh, au lieu ñu def yëfu naafeq ndax féq weesuwul ñu toog ba bakken rot ñu jóg di jouer le rôle du après la mort moo taxoon ñu ne dañuy def li ko ci barma di wax rek fegu balaa ngaa faju loolu rek mooy suñu sensu démarche euh, pendant que justice di def liggéeyam ñun ñuy dox ci beneen wàll wi pour euh, sotti ndox mu sedd mu ne non non non médiation du fi am ah <laughs> ñun ñu ñu ñu dellu ci dellu ci suñuy daara ak si suñu suñu suñu suñu jàngu eh, lañu ragaloon moo am te mënoon naa ñàkk ay wi jolli parce que xam nga ay bu amee te amul kenn ku àtte musiba la eh, fukki bakken ak ñeent rot si te mënoon naa ñàkk. 17 euh, supermarché ñu taal leen saccagé leen mënoon na ñàkk 70 stations essence naka noonu moo tax say Abdoulaye Sy Dabakh ndeysaan dafa am baat bu mu daan faral di wax ci jamono crise politique bi opposé woon président Senghor ak euh, le président du conseil du Dia xam nga booba constitutionnellement le président de la République di woon Léopold Sédar Senghor il avait sous ses sous son autorité l'armée le président du Conseil, l'ancienne appellation de Premier ministre, avait sous son autorité la police et la gendarmerie. alors Senghor jiiñ ko coup d'état ñu jàpp ko xam nga xel yëpp dafay dem ci Senghor ñu ànd ak moom di armée bi bu ñuy jàkkaarloo ak gendarmerie ak police di ànd ak Mamadou Dia bu lorange day am ñun baadoolo yi ñoo ci loru loola waraloon sëñ Abdoulaye Sy Dabakh sol dàllam pendant que justice a ngi def liggéeyam démarche bi jotewul dara avec l'action de l'institution judiciaire euh, maam Thierno Seydou Nourou Tall sol dàllam sëriñ euh, euh, Fallou Mbacké sol dàllam ñuy yéeg ko wàcc di seeti des hauts gradés de l'armée guddi di sotti ndox wëlbati ko dem seeti des officiers supérieurs de la police et de la gendarmerie di sotti ndox di mocc di mocc bay fi sedd guy benn baltàkkul kon nag suñu démarche loolu rek la woon